Seex Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Seex fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku ngeen jëf mbokk yi mbokk yi jàkkaarloo ñu seetaan ñoo ngi am mbégte di ñaanal xaalis général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ñaanal bu baax itam mbooleem njaboot ak Seexul Xadim gépp ñaanal jàmbaar yi ci daar Xuddoos di Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacké yàlla kàttanal taw taw féexal ko tey ji nag di màggal gi nga xamante ni mooy Isrul Muharram di màggal gi nga xam ni moom la Seexul Xadim Xadim Rasul suñu yaakaar ja ñibbisee woon ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba ca taawam bu tedd ba di Cheikh Mouhamadou Moustapha andi ko moo tax nag tey jiile ñoo ngi fii ci bayti ànd ak Serigne Ahmadul Mokhtar Mbacke xalif euh, Daaru Khoudoss ak mbooleem njaboot gépp waaye itam naka noonu itam ñi ngi gis nii nga xam ñooy délégation Baye Fall ak si kon yaakaar naa mbokk yi dana ànd ak yéen ci ay reportage ak i témoignage ak lépp li nga xamante ni ruus na fii ci béyti ànd ko commission bi nga xamante ni moo di intik di saytu lépp li jëm ci wàllu liggéey bi euh, fii ci màggal Daaru Xuddus dal nag nelaw yaa mustawa ñëpp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara yu may yaay borom xaas mustawa muhammadu abdalahi ax nii mustawa ña daa xiiru mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko mustawa ña daa jabar ak ña daa yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Cheikh Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaari sëriñ Sidi Abdoul Ahad ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp ñu yàgg fi téwéer di ñaanal sëriñ Ahmadou Mokhtar mi mu yàgg fi téwéer di dañoo ñëwoon rek ñu di fi woon depuis CRD ba tey di jokkoo ak sëriñ bi di jokkoo ak commité de organisation bi nga xam ne ñoo yor màggal gi bi ñu defee CRD bi Diourbel ñu am ay yitte yoo xam ne bis bi da ko yittewoo te comité de organisation bi war ko toppatoo saytu ko ànd ci ak état ak euh, direction concernée yi ak ministère concerné ak commune Touba ñu war a ànd di gàttandu bis bi ci lépp loo xam ne euh, euh, bis bi laaj na ko wala yittewoo na ko ñu àndoon nag di ko dox di ko di ci wax di ci dox. dafa buñ ne bis bii mooy bisab sëñ Modou Moustapha muy bis boo xam ne bis magu ko ci yoonu murit gis ëpp ko ci yoonu murit loolu mooy la yàlla dogal ndax Serigne tuwa mooy fondateur mooy moom moo moo yoonu murit waaye sëñ Modou Moustapha mooy créateur yoon moo créé yoon maanaam nii mu mel ak ni muy doxee nam tegoon ba ndëgg lool ci loolu lay noonu la yoon wi doxe te defe naa ne eh, ñett warees na ko roy ci moom muy ak dal aw fit maanaam ak naw ak nit am xelam ndax fi mu jëlee xilaaf ak Cheikh Amadou Bamba fi mu ko jëlee ci aas bi mu ko jële ak ni mu ko organisé ak fi mu ko indi yaakaar naa ne loolu ci taarix nit gisagul lu ni mel ci gannaaw yonent ba ba tey jii ndax lu mat a teg teg na ko lu mat a wax na ko te bi mu ko tegee ba ne ba am na fulay sàmm ko ba mel ni mu war a mel loolu nag yombul ndax teg mbir yomb na waaye teg lu dem moo yombul loolu nag bu bis bii ñëwee ñu di taalibe nga xam ne sama maam ki jur sama ndey baayam kere bi ñuy sañ ci Tindodi sama maam bu jigéen moom wax ne ma fii laa daan togge laax yeno bagaan ak laax gi dem ca sañ ca Tindodi bi ñu di ko wax Serigne Moussa Ka bokk na ci taalibe yi jëkk ci sëñ mu Moustapha ci jamono boobu ah loolu moo tax mu ñëw di ndokkeel si sëriñ bi waaye di sàkku si ñaan ci moom te xam ne murit képp ku di murit wala nga di taalibe rek màggal gi am nga ci aw sas am nga ci responsabilité am nga ci war nga ci am nga ci loo war a def waaye loo bëgg sas ko sof ko ci ndax nit kat bu mujj puso bi mu réer bu mujjee puso bu bu jëlee mbir jëlee ko fu fu kenn foogutoon fu yóbbu xamul yóbbu ko fu kenn foogutoon ak njàmbar loolu mooy jàmbar booy tagg ko kooku booy naw nawal ko moo tax yoon kuy naw te sëñ Abdou Lahad moo ne woon sëñ Modou Moustapha maanaam pour mooy sama royukaay ak mboolem ñu bari ci njabootu sëñ Tuubaa gi te def naa ne lépp feeñ na tey kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaa di sàkku ñaan ci mboolem njabootam gi waaye di siyaare mboolem njaboot ak Cheikh Modou Moustapha góor ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi ñu ngi leen di siyaare ci bis bi di ñaanal taalibe yi nga xam ne ñëw nañ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 di sant moom mi nga xam ne moo tax ñu mën fee dellu siwaat di sant itam ñi koy jàppale ñëpp ak ñi koy taxaw di ko sant moom ci boppam noonu nag li ñu boole ak moom dëgg la sëñ Modou Moustapha ci la bokk waaye moom ak sëriñ Mahmoudan ñoo bokk benn ndey rek boo xam ne yaa ya bokk loolu noonu fu nu teg sëñ Mahmoudan rek foofu lañ ko teg lu mu xewle lu ne dañuy bàyyi lana jàppoon lépp ñëw fekke si ko jàppale ko ci ba mu jeex dañu daa def bu nu seeree ba noppi ñu sàkku kenn koo xam ku mel ni sëñ Abdou laat mi mu dem yan doog ñoom ca kër ga fële noonu kon moom ak yëg ak wormaal ak teral mën koo weesu lépp solo nag mooy daru ko doos moom dafa am solo lool ci yoon wi ndax sëñ Modou Moustapha taxawaayam ci sëriñ Touba ak gannaawam taxawaay yim ci taxaw euh, ñu bari mënuñu ko waaye yàlla dimbale ko bam ba mu réussir ko moom kon yal yàlla yokk ay leeram njabootam gépp gi fi jaaroon tax mu ne sëriñ Cheikh Mbacke ba ci xalifaam bi fi nekk yàlla yàlla yàlla aar leen te sàmm leen te tawféexe leen mu wóor leen ne daal bis bii ñoom ñëpp a ko bokk rek ndax bisu sëñ Touba la te sëñ Touba la ñëpp xeentu ñu ngi leen di gërëm yéen itam di leen sant di gërëm RTS yal na yàlla fay leen assalaamu wa rahmatulahi taala wa barakatu